Bonjour chers auditeurs, la population du le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Seules 16 000 personnes sont vaccinées sur un objectif de 66 000. La journée de mobilisation sociale couplée de vaccination organisée a permis de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké, Dr Adama Aïdara Mbacké, est au micro de Touti Sey. Notre objectif et on a pu quand même vacciner parce que vous avez vu qu'il y a même un rush au niveau du point de vaccination. Donc je pense que c'est ça. L'objectif, c'est de vacciner les personnes. Il n'y a pas une très bonne euh, implication parce qu'il y a eu des rumeurs souvent et les gens, quelques personnes, les gens, il y a des gens qui ont fait une prise de conscience, qui sont à leur troisième dose, qui ont déjà pris leur troisième dose, il y en a qui sont à leur troisième dose. Donc, mais l'objectif, c'est d'avoir une implication massive de la population. C'est ce qu'on est en train de chercher. On voudrait impulser cette prise de conscience pour une meilleure implication pour cette vaccination contre la maladie.

de protection financière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. dalli nag jàmm askan wa yeewoo ca département bu Mbàkke ñu ngi soox ba ci jamono ji ci lu soxal vaccination covid 19 ci ab objectif boo xam ne namoon nañ ci ñàkk lu ëpp juróom benn téeméeri junniy nit ak juróom benn fukki junni ak juróom benn dong la ñu ñàkk ñu amal ab journée de mobilisation sociale boo xam ne ñu ngi ci doon amal ab vaccination ngir gën a sensibiliser askan wa médecin chef bu district sanitaire bu Mbàkke docteur Adama Aydara Mbàkke la ñuy teewlu ci micro tuuti sëy yi sooxe moo tax tey ñu organiser mobilisation sociale bi boo xam ni dafay ànd ak ay ñàkk dañoo def évaluation à mi-parcours on s'est rendu compte que ñàkk yi sooxe na trop xam nga léegi ñun war nañoo ñàkk juróom-benn fukki junni te ñun fukki junne juróom-benn rek lañu ñu kon fii ñaari weer war nañoo ñàkk loolu nga xam ni moo ñu manqué pour ñu àgg juróom-benn fukki junne juróom-benn kon loolu moo tax ñu ni tey nañu ñëw woo bàjjanu gox yi woo relais communautaire yi woo leader d'opinion autorité administrative religieuse ñu àndandoo boole suñu xel ak suñu xalaat mais tooguñu rek ñëw tam tey pour wax mais dañ cee boole ñàkk ñàkk donc bi ñu waxee ba pare dañoo permettre ndax am na ay équipe yoo xam ne ñu ngi ne defe naa ni gis ngeen neen ñuy ñàkku man jël naa tey sama troisième dose représentant du préfet préfet la présidente bàjjanu gox ak toutes les bàjjanu gox je pense que ñi ñàkkuwul woon troisième dose te amoon deux def nañ ko ñi amoon benn dose te am war am deux def nañ ko tey kon vraiment jàpp naa ni tey journée bi journée bu am solo la te bu ñu paree dañ koy reproduire ci arrondissement yëpp incha allah les trois arrondissements Ndaam Kayel ak tey incha allah. feebar bu mos a am technicien de santé yi ñooy faj waaye askan bi ñooy ñoom ñoo koy xeex foofu lañ leen xaare ñu ñëw àndandoog technicien de santé yi ñu góorgóorlu ba fexe ba nit ñi ñakku ndax bu nit ñi ñakkoo feebar bi dana reculer bu yàggee reculer bu yàggee mu dem directeur général bu agence nationale de la couverture maladie universelle docteur Bokar Mamadou Daf dina amal ci àjjuma ji ab cérémonie boo xam ne day fësal jàppale bi CMU bëgg jàppale campagne bi di octobre rose ñu nat ci amal ay séance de dépistage gratuit soxal cancer du col de l'utérus ak cancer wen tëgg it ab panel boo xam ne dañ ciy waxtaane ñàkkum koom ak canceru jigéen ñi yan jumtuwaay lañ ci war a jël mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm